yéen ñi féete Touba te itteewoo saa su ne suñuy produit bio Rahma mën ngeen daal di woote ci 76 679 41 12 76 679 41 12 yéen a ngi koy jëlee en face tapis rouge bi nekk Touba kon mbokk yi déglu te nekk Touba Mbàkke ak lu ko wër te itteewu ay produit bio Rahma mën nañu daal di woote ci 76 679 41 12 suñu wootee dinañu jot ku tudd Ndeye 76 679 41 12 mooy numéro bi lay may yow mi nekk Touba nga mën a am produit ci anam yu sell te wóor jaa